ma ñàmbi jéeg yëpp dama koy jëlaale. allo salaamaaleykum waa sama waa kër sama waa groupe waa maajoor ak joor man la encore aji maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku nekk ci turam ak santam di ñaan si yàlla boo leen di déglu audio bi yal na leen fekk ci jàmm ju bëree bëri ak xeewal bu bëree bëri donc ñuy dellusiwaat toujours si affaire kii bi série bi di wax ni ce qu'on n'a pas compris mënuñu comprendre naar tout le temps nit boo xam ne da nga dëkk ci lu bon di def lu bon te mosoo ci am problème loolu tamit euh, xaw nañu jaaxal torop ci film bi joor euh, nag euh, vraiment li ko dal metti na non seulement ñàkk na yaayam en plus xelam feebar dal ko ci xelam bi kii jaxasoo ba pare en plus naar mi ngi jouaat jeu ñi ngi noonu yóbbu ko te kenn xamul fan la ko jëmee encore vraiment ñi ngi koy ñaanal yàlla yàlla dimbale ko ba mu dellu si waat ak xelam si jàmm salaam mais naar aussi pour ñu faire nit yi mel ne naar parce que man ce que je comprends pas pourquoi nit di def lu bon toujours muy am toujours réussite loolu moom mënuma ko supporter donc naax aussi bësam war na ñëw naqar yu bëri yu muy teg doomu aadama yi ak yu muy teg joox teg ko yaayu joox teg ko ñëpp ku ko jege même frère sax lu bon la koy def donc yàlla tamit war na ko wan mu am lu metti comme saa ñi mel ne naax nekk ci société bi di dund li naax di dund di ko teg doomu aadama yi ñoom aussi ñu xam ne def lu bon baaxul ngeen baal ma su fekkee ne dama guddal ci audio bi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp si sama waa kër gi di leen ñaanal jàmm eh, di leen def tamit gros bisous yéen ñëpp tout le monde ñëpp képp ko wax ci groupe gi rek je te fais un gros bisou tamit maa ngi lay ñaanal jàmm ak xéewal bu bëri bëri ngeen baal ma wa rahmatulah maa ngi leen man daal série bi moom instant yi mu may bëgg a métti bakkan naa chaque jour dafay am victoire ci kaw ñoom joor ak ñoom maa joor te nag nit kuy def lu bon danga kaa war a gis wante naa daal chaque jour moom lu mu def rek da ciy am résultat bi mu bëgg loolu c'est pas normal ba pare docteur bi tamit def na erreur te joor waru ko foon génne tant que ñi ko fa indi woon ñëwuñu wala mu woo leen ba jot leen waaye nit ñëw rek may tàntam te mu soo kaa gis nga jël ko jox ko ko loolu moom nekk ku róoru docteur wax dëgg yàlla ba pare naar moom war naa deltu ginnaaw xam ne àdduna bi amul solo def lu bon amul njëriñ dina ko gis nag moom waaye joor moom wax dëgg yàlla sonn na sonn na torop waaye yaay maajoor moom fan la mujjee anamu ci tëj buñ ko tëjoon boobu léegi wane waatuñ ko metti na torop wax dëgg yàlla salaamaaleykum salaamaaleykum sama groupe sama waa groupe lu xew tv maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñépp di leen ñaanal yàlla yàlla na ngeen yàlla may mucc ak mucc la yàlla dàqal ñu seytaane yàlla lafal ñu cet yàlla defal ñu sutura su baree baree baree bare su kawe suñu njort ah ma ñëw ci ki nga xam ne mooy maajoor ak joor waaw man boobu ba tey mënuma xool joor ndax ay jooy ndax affaire bi dafa metti te dafa am ñu ko dund te naar teggiwu tànkam naar soxor na bon na iñaan na iñaan naar moom du nit du nit du nit lu mu def xeeb lu mu def xeeb man daal fi mu toll nii affaire bi moom naar moom daa war a nekk ci fitna rek ndax mooy mooy tax xol nit ñi seen ndax nit ñi seen xol yi tàng na trop ñun am nañ trop lu ñu metti joor man mënu mu ko xool te jooyu moo tax fan yëpp film bi moom damay suivre waaye nag moom metti na daal metti na ah xanaa ñu toog rek di xool di xaar di waxawlu def lu baax ak lu bon ba xam fu muy mujj salaam salaam joor ak ma jox ñuy naa leen bu baax ziar naa ñëpp euh, man dama bëgg a laaj maa jox lan mooy rôlam maa jox lan mooy rôlam ci théâtre bi yow en tant que ñu ne la sa soxna réer na nga toog di attaquer ay waa kër geex xam nga ne ñoom ñoo def mais yow demal wëri jikkee d'abord mais man dama gisul benn effort bu mu def lu du toog seen kër di sañ seex ka xuloo ku am ku am na xar noonu ngay def toog fi nga toog di sañseex ko xuloo hmm? ay naan sa aaw bi tey man ngaa ñëw fanaan si fii donc ça veut dire que ne ñoom euh, réeru joox ñoom defu leen benn problème mais man théâtre bi man comprendatuma de ku comprendre nag bu ma mënee teg si cot na ma teg si code parce que man moom comprendre tuma dara dara dara si théâtre bi joor mën na ne day misère nii rek nii ba kañ ba kañ loolu laa bëgg a xam et puis pap joor aussi yow li ma gën a frappé sax ci théâtre bi mooy ñu ne ko yow joor dafa disparaître yëgalu ko sax yaramam moom mu ngi toog fee di naan kafem naan jarbaatam bi am nga loo ma des a wax ah, ah, fanaan bi moo tax mais man comprendre tuma moom mu ne woon dafa bëggoon yaay kooku ak gaay nag lii nag ëpp na de lii moom ëpp na loolu sax buñ ci <laughs> mënee wax moom ñu wax ci lii ëpp na de. man gëw ma lii am na si àdduna bi lii gëw ma ne façon bii nii nii nii coono bi ah dund naa coono de mais bii moom ëpp na nag. waaw man nag à chaque fois damay concentré wu ci série Madior ak Dior ma gis joor ci biir série bi mu ci joué benn rôle boo xam ne dafa metti trop série bi nag nekk na série bi nga xamante si ni dafa raar ci série yi ndax dañ ci joué loo xam ne lépp tëkk la. am na ñu koy dund am na ñoo xam ne tamit dunduñu ko ndax dafa metti nga juddu xamoo sa papa xamoo kan mooy sa papa sa yaay jour bi nga waree mariage jour boobu la gaañu mu metti torop sax joor perte ne waaram nekk ci fu ne mu dem fa metti na trop boo koy seetaan sa yaram bi dafay daw mais may conseil nit ñi nga xamante ne si ne ñoo koy seetaan ak lu mu man ci toll nañu bàyyi xel ne série la rekk du tara ndax nit bu nekk doo jël sa jukko bi nga xam ne moo nekk ci yow nga di ko wane dañu ne jox seen dañ koy joué nekk série boo xam ne nag wax dëgg yàlla nit ñi bëgg nañ ko trop trop ndax dafa nekk série boo xam ne dafa raar ci série yi nga xam ne moom la ñuy joué léegi man nag duma def lu dul encouragé leen ndax man joor dama ko bëgg trop dama ko yàgg bëgg waaw di leen ñaanal tamit li ko xam yàlla defal leen lu xew TV seen YouTube sénégalaise da nga bëgg publicité jokkowal ak ñun lu xew TV xibaar yi wér